comprendre mais ay DG yo xamné ne tey mooy budul won politique duñu nek parce que man ne gëm pas. mënuma gëm ñenn ñi pas fi di défendre le président président Macky Sall bu fekkone sax waxna mais pas néna ni wi ni Si xam nga ni Oscar des vacances ni oui ni non ñu ñuy andil ni ñu mu am ño xamne tay tey tok ci ay plateau nan dañuy défendre le président Macky Sall le président a été clair wax lu tax mu naan ni oui ni non. il l'a dit même vous fekkee professeur nee na président de la République vous êtes au-dessus de la mêlée. vous ne gérez plus un parti ou une coalition moi vous gérez toute une nation moom laa la quand aujourd'hui nekk qu'une station président nous avons le, tous les pouvoirs nous avons un gouvernement des ministres des ay DG comme nous avons ko waxee soo toogee ne ah liguer. Il y a un problème. d'accord gay. un grand problème Un grand problème. donc on a un problème. il faut qu'on soit sérieux. Omar et que déjà pour le président mu génn. Hum. Omar si nous disons li li xew tey reflet wu entre euh, Barthélemy Diaz peut-être avec Ousmane Sonko nous avons un petit Diapal Bat, Diapal Ousmane Sonko euh, peut-être looloo tax tey li xew euh, ca rassemblement ba bañ koy wax waxu xalifa di ko di ko yuuxee peut-être looloo tax est-ce que tey euh, dialogue bi du nekk luy diviser en quelque sorte lii di yeewi askan wi et même au sein du F24. bon xam nga il faut nous rappeler parfois que le 3 avril. le mmh. président donné il s'est ouvert au dialogue. Mmh. lan waxoon fii ou am na ku ciy dox ou am na ko xamante nii ne war na ko war na ko dox. Mm-hmm. ñu gis ne ou ñu gis yi. Mm-hmm. ou war nañ ci nekk. après ñu gis nekk am na ku ci doon dox. xam nga li muy baart. waaw beneen bi. Mm-hmm. mooy korite. je suis ouvert mhm. D'ailleurs, je lance un appel au dialogue. On mhm. le lu changer. changé. Barthélemy éliminer. L'émail Les mhm. c'est depuis 26 janvier. am ay mag yu ñëw di rendre compte mais rendre compte ba lii am ça di ko que donc lañ ñu waxtaan ba korite jot mooy pare nañu dialogue bi c'était réglé pour ça entre les leaders comme ni ko Barthélémy waxee woon mais au moins amoon nañ ci njort mais nañ ko dañ ko tegoon nañ ko tegoon da ñëpp dañ ñëw taxaw ne PDS la dil la wala mhm. mhm. ah oui moo tax waa PDS dañu war a yónnee citation directe Mimi Touré mi ko waxoon <laughs> Mimi <laughs> dañ ko wara Je ah dil de mais non non non non mais mais mais aujourd'hui mais aujourd'hui mais de. mais même non non non dil non non non dil ñaar moo am participer au dialogue ou de ne pas participer et chacun est libre mais je soutiens Barthélemy waouh et ils ont intérêt à ce que ñu bañ egg jusqu'au fond parce que Barthélemy il a le mérite exceptionnel d'être un grand combattant dans ce pays Et il mën naa am benn position ku nekk di wax il faut le lui reconnaître ce qu'il a fait Moi, moi, nous ni ñu koy waxee sama doomu ndey lay ax Sonko donc amna luñu lu c'est trop profond amna waxu biiriñ ne amna waxu mbedd te ñi yàgg nekk ci biir état wala ko exercer wala ñi nekk dans l'opposition di y dox du lepp le wax ci mbedd amna na ci ni c'est entre mais dans le but de bien faire c'est pas dans le but de fragiliser ou de faire quoi que ce soit aujourd'hui tay da ngay gis ñoo xamante ñi ñu àndoon tay àndatuñu am ñoo xamante demb démb ànduñu woon tey ñooy ànd. Mhm. donc c'est de la politique c'est des alliances et des alliances ça existe parfois Barthélemy dafa taxaw ne. Mhm. nee na depuis lors ñuy xeex ñaar la ñuy xeex li ëpp solo li ñu xeex mooy Karim Wade ak Khalifa Sall dañuy bokk élection loolu lañu loolu la ñuy kaas amul ben leader nak parmi dans le bu taxaw mu donne une revendication ta revendication bu fekkee c'est une revendication dans la rue est-ce que am nañ ci depuis lors il y a des revendications am il y a des revendications dans la rue ci mais depuis ñuy xex ces revendication am nañ ci ndam ci dans Yéhu, qu'on le veuille ou pas, il n'y a que deux partis majeurs. C'est Pastef, c'est Tahaou Dakar. Ah, pur, faut pas pur non, non, ça, ah, d'accord, ah, pur, mais pur, mais, mais, ah, mais quand même, mais quand même, les gars symbolisent. Non, non, non, le, ouais, le non, mais, pur, c'est une... Non, demandez, demandez. Hein, ah, le pur, c'est une force. Wa, Non, demandez, demandez, demandez. Donc, ah, je ne peux pas dire que pur, c'est pas une force, demandez. Ouais. Les gars symbolisent. Et qui ont des revendications. Et qui ont des revendications.

yenn y a ñu def ay débordement dañ leen di comprendre parce que c'est des jeunes mais mënul est à ce niveau C'est du comprendre la voie bi nga xamante ne nañ ni ci pour les élections présidentielles qui n'ont rien à voir ni avec qui n'a rien à voir ni avec les revendications c'est d'aller à la rencontre avec le président même s'il est un dictateur pour trouver un terrain d'entente pour que Khalifa participe pour que Khalifa c'est pas à saluer ça mais c'est à saluer maintenant amna nak nag ñu ko bëgg amna na ñu ko bëggul ñi ko bëgg baax na ñi ko bëggul baax mais buñ leen ko bañal là où les gens ont accepté que Mimi revienne vienne à quelques jours des élections yi passées législatives fii la taxaw moom ak Sonko lu ko neex la ko mais comme peut cette dame là aujourd'hui que les gens ont accepté pour que pour qu'elle soit dans f 22 il faut accepter nak qu'aujourd'hui que Bati Dias taxaw ñu wa dem dans les élections présidentielles ñu xam ne ñoom ñëpp ñoo taxaw ñu wax suñu pacte bi ñu signé à parler local, à parler législatif, législatives présidentielles nous que nous nous xam na trouver solution. donc c'est une cause tout à fait mais c'est une cause mais normale. mais bien sûr. donc vous rejoignez docteur. Mais mais docteur dama docteur hmm. je suis en phase à 400 milliards pour cent avec Parti Dias. très clair. parce que ce dialogue bi. Hmm. Si on peut aboutir à ce que Khalifa Sall et Karim Wade participent